asalaamaaleykum mbokk yi nuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu tànd ak wér mbokk yi ñu fas yéene ñëw rek ci ab jàngat boo xam ne sunu xalaat wala sunu gis-gis la ñuy joxe ci loo xam ne jamono bi mi ngi am ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ndax Touba dëkk bi ci fàttali rek Cheikh Ahmadou Bamba moo ko sanc ci atum 1800 88 ba mu koy sanc kenn jàppalewoo ko ci moom rek moom moo fi nekkoon cundum ak ay rabi àll dëkk bi nag dem na ba neex fu ne nit bàyyeekoo fa ñëw fi waaye ñu fàttali aussi ne dëkk bi titre foncier la boo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba moom moo ko moom te jamono bu nekk am na kuñ naan moo fi Cheikh Ahmadou Bamba te jamono bi nekk Cheikh mu Mountakha moo fi Serigne Touba ñuy ñaan mu gën a yàgg lool te mu gën a wér. dañ jàpp ne sëriñ Touba képp ku ko doon rek muy xalifaam da nga kaa sëkk te bi lépp lu jël muy ndigal loo xam ne daf ko santaane lees mën a jëfee la te it lees war a jëfee la rawatina ñi nga xam ne dañuy woote woon ne ay murid lañ ay taalibe Serigne Touba lañ waaye rawatina ñi nga xam ne dañoo féete ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba mbokk yi jamono bi dëkk bi lu doy waar mu fi xew. ci tere yi nga xam ne sëriñ bi tere na ko ci dëkk bi ñoo xam ne duma mën a ñëpp mais ñenn ci ñoo xam ne parewuñ ngir sàmmonteeg loolu sëriñ bi tere maanaam parewuñ ngir euh, jëfe ko loolu nag sëriñ bi am na ñu ko teg seen loxo ñu war a sàmmoonte ak moom ndax tere yi du fi guléet yàgg nañ koo tere ci dëkk bi fu ne jaar nañ fa ngir li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi di tuubaa mu am waaye saa su ne dañuy gis ne am na lu ca des sëriñ bi nag bu demee ba dénk ko ñi nga xam ne ñoo di bay faal yi xëy na jàpp na ne mu ñoom bu leen ko dénkee lam bëgg dana am waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci Touba su fekkonte ne ñun wen mel nañ ni ñu war a mel su fekkonte ne jëfe nañ digal ba sëriñ bi waxee rek yaakaar naa sëriñ bi du àgg ba ci bay faal yi ba leen di sant ngir ñu saytu ndigal loolu ay taalibe mu lañ la wax nag ne moom lañ wala moom lañ bëgg a doon. lan moo tax ñu mën a jëfe ndigal wala lan moo tax ñenn ñenn ñi parewuñ ngir jëfe wala ñooñ dañ leen bàyyi ci dëkk bi dañuy def leen neex te saasu ne dañu jàpp ne wala koo fi jàpp ne mooy sa kilifa rek kookee am na kilifaam kooku am na kilifaam te bu ñëwee ba Seex Mamadou Muntaxa fa lay yem ndax képp ku ñu wooyee kilifa ci yoonu murit wala ci dëkk bi di Touba boo ñëwee ci sëñ Muntaxa ci suuf ngay toog te bu la waxee lu mu la wax danga koy jëfee léegi nag kilifa yooyu nañ wax ak seen njaboot yi te jàppale Cheikh Mouhamadou Mountakha ñun taalibe yi ñoo war a jàppale sëriñ bi kilifa yi ci dëkk bi ñoo war a jàppale sëriñ bi ci lii nga xam ne moom la bëgg sëriñ bi li mu bëgg mën naa ne ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi kenn du leen dab naan leen summi leen li ngeen sol ndax xalaatu ñoo sol loo xamante ni dañ koy tere am na ñoo xam ne ci dëkk bi kenn du leen dab naan leen watu leen. ndax xalaatuñoo watoo noo xamante ni dañ ko xool sax di jeex jaaxal ndax wat bi euh, war nañ ko dindi wala waruñ koo dindi nan mel ni sëñ bi bëgg suñ ko melee rek yaakaar naa jafe-jafe duñ ko am man loolu moom mooy sama gis-gis ci li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha bëgg ci dëkk bi muy Touba Mbacké te lépp lu fi bëgg rek suñu njariñ la lépp lu mu ñu sant rek suñu njariñ la ndax Cheikh bi sëriñ bi bëgg na ñu nekk ñoo xamante ni ay citoyen modèle la ñuy doon. ndax sëriñ bi bëgg na ñu nekk ñoo xamante ni ñu mat sëkk ay royaay la doon te loolee mën naa nekk dëkk bi tu dëkk bi di tuubaa dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkkub royuwaay la war a doon te loolee mën naa nekk loole nag mu ngi bàyyee mu ngi déparé ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi ci ñun ñii ñoo war a jëfee li sëriñ bi bëgg suñ ko defee yaakaar naa ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi santaat sant euh, euh, ngir ñu saytu li mu bëgg ci dëkk bi yaakaar naa boobaa ñoom sax duñ liggéey ndax mën nañoo xëy soo ba ngoon duñu gis lenn loo xam ne dañ koy tere ci kon mbir mi sëñ ñu jàpp ne ñun ñii la ñoo defut li sëriñ bi bëgg beneen bi ci li ci topp mooy lépp loo gis ci àddina ñu sant ko ay nit ñu koy def foo jaar abus am ci foo jaar ay dérapage am ci xëy na suñu mbokk bay Faal yi nga xam ne ñoom lañ sant liggéey bi yenn saa yi am ci ñoo xam ni xëy na mën nañ jëfee loo xamante ni ab yu mën na cee am ay njumte lay doon ndax doomu aadama mooy cuub xëy na am na ñenn ñu nekk seen biir ñoo xam ne dañ cee rax di jëf loo xamante ni boo ak li sëriñ bi santaane am na ñoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi bëgguñ mu am ndax bëgguñ bëgguñ dëkk bi tege ci yoon ba tax na saa su ne ñu ngi def ay sabotage ngir lépp rek ngir fexe jaxase ñii di bay Faal yi ak askan wi ba lii nga xam ne moom la Cheikh mu Mountakha bëgg ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkku maamam bi di Cheikhul Khadim loola bañ a am. may ñaan aussi sama mbokk Baye Fall yi lii di liggéey bi ñu defee ko ak diplomasi ak compréhension jiital ci ak waxtaan di waxtaan ak askan wi ndax yaakaar naa am na doxalin woo xam ne suñ ko doxalee rek lañ bëgg mën nañ ko am te benn fitna du ci du ci duñu àgg ci benn fitna. ndax yaakaar naa loolu sax bëri na ci ñoom ñoo xam ne loolu la ñuy jëfee xëy na liñ leeral sànq rek ne. mbir moo gis des fois dérapage am ci des fois abus am ci ci ñenn ñoo xam ne nañuy doxalee day wuuteeg nanga xam ne noonu lañ ko bëggee kon mbokk yi euh, li nga xam ne moom moo war a am ci dëkk bi di Touba muy ñu sàmmanteeg teggin yi muy ñu sàmmanteeg worma yi mën naa ne ñun la rek ñoo ci war a jàppale Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu jëfee ko waaye jàppale ci it Baye Fall yi nga xam ne ñoom lañ ko sant ba ñoom duñ ñu gis benn yoon. ci lenn loo xamante ni sëriñ dana ko tere ndax ba sëriñ bi teree ba léegi suñu waxantee dëgg rek saa su ne nga romb ci mbedd mi gis loo xamante nii da lay na lii bu fekkonte ne Baye Fall daje naa ak moom mën naa jëflante ak kooku te loolu ñàkk respecté li nga xam ne moom la sëriñ bi wax la chaque jour nga wàcc guddi gi dajeeg ñoo xamante ne ay ay ay ay gone lañ ay mag sax yenn saay ñuy fubal ci mbedd yi te pourtant dañ koy defee ci ay buntu kër yoo xam ne ay kilifa dañ fay nekk duñ leen wax dara léegi nag ñi koy tere buñ ñëwee jàmmaarloog ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bu ko defee kilifa yooy jóg tàmbalee wax loolu lépp mën naa ñàkk kon kilifa gu ci nekk na waxtaan ak njabootam kilifa gu ci nekk na jël njabootam teg ko fi nga xam ne moom la ko war a teg ba bu ëllëgee du jëf lenn loo xamante nii moom dana ko ci fekk muy jóg di ci wax ndax génn kilifa rek moom am ci dëkk bi mu Cheikh Mamadou Mountakha keneen ku ci nekk rek ci ronam nga nekk kon loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi ñu gën a jàppalewaat sëriñ bi ci li nga xam ne moom la bëgg ci dëkk bi di Touba te maytu coow li maytu yàqkat yi maytu ñi nga xamante bëgguñ lenn loo xam ne sëriñ bi teg na ko fii ci dëkk bi mu réussir ko ñu ngi tuubaat baax a baax tey jégalu ci kàddu yi lu ci jub ci ndimbalu yàlla suñ borom la te xam ne suñu jublu moom mooy gën a laaye biir ñi nga xam ne ñoo di mbokki taalibe yi gën a laaye biir ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal dëkk bi ci euh, euh, lu baax li nga xam ne moom lañu Cheikh mu Mountakha bëggal loolu rek moom moo sababu wax ci waaye jubluwuñ ci dut baaraam kenn jubluwuñ ci ŋàññi kenn jubluwuñ ci tuumaal kenn mbokk yi li sëriñ bi bëgg mën naa ne nañ ci jàpp bu baax a baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf